Euh, problème ki nga xam ne rek moom moo di Nabou Leye ak Aziz Dabala ñu fa yéene ñëw ànd ak yow indi li nga xam ne rek moom moo si bees jamono bii ñu toll nii wante nag bala ñuy dikk ci li nga xam ne rek moom moo bees ci problème ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye dafa am beneen information bu nga xam ne rek fa yéene nañ see dikk ànd si ak yow ci jamono bii ñu toll nii ndaxte gis nañ femme bi nga xam ne rek wala boog ki nga xam ne dañ kaa gisoon mu ñàkk bakkanam ci pont 92 bi ci biir ndox mi ñu gisoon këne jamono boobu fekk na lii di kooram commencé woon di yàqu ba ñi nga xam ne sax ñoom ñoo di sàppoo jotoon a am ay jafe-jafe pour rek daal di koy génnee wante yàlla def si sutura ba ñu daal di koy génnee ci ay xibaar nag ñu baree baree bari jàpp nañ que ne jamono bii ñu toll nii daal di nañ koy jot a lan moo waral li mel ndaxte dañoo gis benn information boo xam ne rek benn femme boo xam ne Alexandre lay wuyoo congolaise la benn étudiante bu nekkoon foofule ca Canada ñu gis ki nga xam ne rek moom moo di yaayam di jooy te tamit wax que ni moom moomee doom ji dafa disparaître woon ñu doon ko wër di ko wër di ko wër mu jaaxal yaay ji lool lool sax gannaaw gi nag lañ ko fekk ci am ndox mu ñàkk li nga xam ne rek moom moo di bakkanam te boobe fekk na dañ koo rey ba pare dugal ko ci biir ndox mi en tout cas lu ci mënti am daal mooy jaa mooy ñu jàng si que ne message la boo xam ne parents yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew mii di Sénégal war nañ see bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax est-ce que nag moom mi nga xam ne rek moom moo faatu mooy ki nga xam ne moo nekkoon ci pont 92 bi moom la wala du moom lu ci manti am li ci kanam raw li bët ndaxte tamit jamono bii ñu toll nii moom mii nga xam ne rek mooy congolaise bi daal dinay jot def li nga xam ne moom moo de révélation génn wax doomam ji nga xam ne rek gëjoon na koo gis lool kon nag képp koo xam ne sénégal nga rek war nga see mën a jàngat te tamit war nga see mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndaxte nag jamono bi ñu toll nii réew mi dafa yàqu te tamit dafa tas lool bari na si loo xam ne boo deful trésitation rek mën nañ laa yóbbaale ci li nga xam ne moom moo di xumbaay bi ak li nga xam ne moom moo di mbumbaay bi ci noonu nag la ñuy daal di dooree direct dem ci ki nga xam ne rek moom moo di Aziz Dabala ak ki nga xam ne rek moom moo di Nabou Leye mën nañoo jàpp que ne seen diggante ñoom ñaar depuis ñuy ànd mu nekkoon ànd boo xam ne rek ànd bu rafetoon la au début wante ñu dem ba gis ne dernière minute dafa mel ne daa am loo xam ne daf saa commencé di coppeekuwaat te li nga xam ne nag moom moo sa commencé di soppeeku waat du lenn lu ay information yoo xam ne daal nañ koy jotaat ndaxte gis nañ benn waay bolo bokk benn soxna boo xam ne mi ngi xamle que ne bi nga xamee ne rey nañ kii di Aziz Dabala yàggul dara ñu daal di nemmeeku ci fi nga xam ne rek moom moo di Gàmbi benn waay boo xam ne yaayam la daal di rey te loole mu nekk phénomène boo xam ne bañ ko nemmi gis nañ que ne sorewul ak génnuk àdduna ki nga xam ne rek moom moo di Aziz Dabala lan moo waral jëf ji mel nag nekk jëf yu ñaawa ñaaw ñaaw joo xam ne gis nañ que ne nekkul lu normal te tamit nekkul loo xam ne rek lu justu la ci kii nga xam ne moom moo di Nabou Leye ba tax nag ñu arrêté ko moom Nabou Leye li tax nag ñu yëkkati kàddu yi ni mel dañoo gis que ne ñaari famille jamono bi ñu toll nii dañoo neexootul ndaxte gis nañ sëru ki nga xam ne rek moom moo di Aziz Dabala ma ngay génn di dal ci kaw ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di famille nabu Leye lan moo waral li ni mel ndax gis nañ ñeneen tamit ñoo xam ne comme façon boobu lañ daal di def te li ko waral mooy que ne ñoom dañoo gis ne dafa mel ne rek affaire bi joxuñu ko fulla affaire bi joxuñu ko fayda ndaxte depuis ñu ñàkk li nga xam ne moom mooy seen doom ñi ngi toog di xaar pour rek koo xam ne dana leen di faral di masawu pour rek loo xam ne dina far lii di seen rangooñ wante ñoom dañoo jàpp que ne France daal di xëddeen mu lenn loo xam ne ñoom ñi ngi koy def muy ay acte te loole sax dañ kaa booleek ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di famille Aziz Dabala jamono bii ñu toll nii dafa mel ni dañoo engagé wu ci li nga xam ne moom moo di dossier bi ndaxte bëggatuñoo bàyyi dara muy jàll te tamit dañoo nemmeeku que ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu yoon dafa mel ne dañoo xaw a ci mbir mi ni te loolee du nekk loo xam ne lu leen arrangé la ndaxte liñ bëgg kut kaakut mooy que ne nañu daal di leeral li nga xam ne rek moom moo di dëgg ji te dëgg googee pour mu mën a leer naka il faut que dina bari mbir yoo xam ne dinañ ko génnewaat jamono bii ñu toll nii ndaxte dañoo gis ñoo xam ne rek dañoo nekk en colère di jox ay information yoo xam ne jàpp nañ que ni wante nag ñi nga xam ne rek dañoo gis que ni problème mu Nabou Leye ak Aziz Dabala nekkul problème boo xam ne rek dafa njëkk tey ndaxte ci seen wàllu liggéey jàpp nañ que ni am na loo xam ne seqoon nañ ko loo xam ne sénégalais yu baree baree bari xamaguñ ko woon. moo tax nag jamono bii ñu toll nii ñu jàpp ko ne dafa am lu yees ci dossier bi te kii nga xam ne rek moom moo di gambien bi nga xam ne daal nay leeral lu baree baree baree bari ci li nga xam ne rek moom moo di mbir mi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di enquêteurs yi jamono bii ñu toll nii ñoom it nekk ci li nga xam ne moom moo di ay réglage wante kat amul lenn loo xam ne ñi ngi koy def mu saf wala ñi nga xam ne ñoom ñoo di famille ki nga xam ne rek moom moo génn àdduna di Aziz Dabala famille yi nga xam ne nag ñoom jamono bii ñu toll nii seen yoon nekkul ci li nga xam ne rek moom moo xew parce que tamit dañoo jàpp que ni seen doom deful. wante en tant que koo xam ne tey da ngay def ay analyse gis nañ que ne moom mii di Nabou Leye bu fekkente ne woon deful jàpp nañ que ne juges yi duñ leen téye depuis boobu ba tey di leen di xaarloo pour rek fas yéene xam exactement lan moo xew ci li nga xam ne moom moo di dossier bi te dossier boobu nekk dossier boo xam ne rek bu tàng jër la ndaxte kat bari na si loo xam ne lees waxul la ci biir mbir mi moo tax ba jamono bi ñu toll nii amul kenn koo xam ne rek mën ngaa dikk indi ay leeral ci li nga xam ne rek moom moo di biir dossier bi lan moo tax nag saa su nekk rek buñ yëkkatee problème kii di Aziz Dabala ak Nabou Leye am si ñoo xam ne rek dañuy xaw a siisu ci benn côté mel ne rek koo xam ne buggoo ñu tudd kii di Nabou Leye wante yoon moom moo ko teelu buñ fàtte loolu ndaxte tamit bari na si ñoo xam ne dañuy def ay njombe en tant que ay analyse en tant que koo xam ne tey jàpp nga ne defoo dara bu fekkente ne arrêté nañ la ci sama xalaat sa xel war naa mën a dal. Euh, beneen bi muy ñenn nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay journaliste gannaaw ba ñu nemmi ko que ne kii di Aziz Dabala génn na àdduna ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay journaliste tout le temps ñuy dem ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di famille bi di leen di dékk li nga xam ne moom moo di ay micro mën nañoo jàpp que ne comme l'enquête bi mi ngi dox mënuñoo nag def kurkakutu ñu daal di am li nga xam ne rek moom la ñu. moom la ñu bëgg amul lenn loo xam ne rek jàpp nañ que ne mën naa am jamono bi ñu toll nii ci li nga xam ne rek moom moo di dossier bi te ñi nga xam ne ñoom ñoo di enquêteurs yi rek parewuñ ci li nga xam ne moom moo di dossier bi kon nag yàkkamte gi la ñuy bañ ba tax sëram sax waxoon nañ ko sànq ne ñoom bu doon am nañ lu leer ci seen loxo peut-être sax seen xel dina mën a dal ndaxte nag deret la te tamit doom dafa foor ndaxte moom kat monument la ci biir réew moom moomee di Aziz Dabala ndaxte tamit même way yi nga xam ne sax ci la nekk mu yenn ci ay clip bari na si ñoo xam ne rek seen xool mayatu leen ñu toog di ko seetaan lan moo waral leen ni mel ndaxte gis nañ que ne amul lenn loo xam ne rek war na kaa mën a def ba tax rek ñu koy faat di jël bakkanam ci jëlin goo xam ne gu ñaawa ñaawa ñaaw la ba tax décédé gi nga xam ne rek daal dina koy décédé ñu baree bare bari jàpp nañ ko ne naqarlu nañ ko ci jamono boobu nag gis nañ yeneeni mbir yoo xam ne jot naa xew te sax ci lañ koy tënkee mu nekk nag loo xam ne actualité la bokkut li nga xam ne rek moom mooy mbirum kii di Aziz Dabala ndaxte tamit ci biir li nga xam ne rek moom moo di teer bi nemmeeku nañ fa seen nas ndaw soo xam ne rek dafa jékki daal di daanu ba tax sax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo yor lépp lu dellu ci wàllu sécurité daal di koy jot rawale lan moo nekk ci biir teer bi nag ndaxte c'est pas la première fois ci ni nga xam ne rek noonu lañ ko mën a waxee ba tax rek ñu siy woo ki nga xam ne moom moo yor lépp lu dellu ci wàllu dem ak dikk bi di El pour rek mu daal di siy taxaw ci nam gën a gaawee daal di delluwaat tamit ba foofale ca diwaanu Matam benn l'accident bu méttee métti boo xam ne rek am na fa gannaaw ay doomi aadama yoo xam ne jóge woon nañ ci diwaanu Ndakaaru jëm ca maatam bañ yeggee ci warasoo gi jàdd jëm yoon bi nga xam ne rek moom moo di yoonu na baaj fa seene continuer li nga xam ne rek moom moo di seen doxub yitte yàlla dogal seen wata daal di taseek beneen camion bu nga xam ne rek tax na ñaari doomi aadama daal si génn àdduna te loolee nekk loo xam ne rek ci dem beek dikk bi la donteele bari na si ay yoon yoo xam ne tane na am si ay yoon yoo xam ne nag ñàkk a baax ak ay door daanu yoo xam ne yu normalul di faral di waral jéye ji ni mel te loole ñu war see bàyyi xel bu baax a baax ndaxte kat sécurité nit ki wërta tax rek nga jël ay dóor daanu def ko bam tolloog asamaan si nga xam ne oto bu si dal sax maara day taali bu ko yàlla defalul sutura bu amul sens mën na saa daal di jaar daal nga xam ne rek moom moo gënoon a fees ñu dikkoon pour partager ko ak yéen sur ma chaîne YouTube Partout TV di leen di wax ngeen di wéy di abonné saa su